de am na ñoo ko téléchargé. maa la wax li KPD moom suñu doon ne mooy mooy ndimbalu réew mi nag. mooy suñu yëf. mooy suñu yëf ñu ñoo ñu moomal suñu bopp. dépôt yónnee jar xaalis fay say facture loo fay dara. di ci fay courant. Hmm. ak màggal gi dina yombal lépp. di fay ndox. maa la ko wax. di ci fay hmm. abonnement. di ci jënd crédit. di ci nduggee boole ci. waaw. Hmm, li di wax. Euh, euh, ñi nekk ci géew yi bu la neexee yóbbu seen KP. nopp la ne de. boo bàkkee nit ki ba ba ba yaram bi tàng taalal ko ca kaapee rek. noppale na de. waaw téléphone yi mbëkkante. maa la li. noonu moom laa xewale jënd kaap ba ci ci Malekunda. Ah. li ma taxaw ni ko defal mën naa nga ba wàcc ci ci pompe si ni ni ni taj. dóor li. balaa ma balaa ma balaa ma noppi ma scanné ko fay ko. maa la li màggal gi kay kenn rek ku mën a yomb rek waaw muy kaapee. Hmm. déposé doo fay yónnee doo fay jot xaalis hmm. doo fay faj say facture doo fay. jënd carburant hmm. te bu fekkee dangaa ngaa ci carburant eh, ci EDK yi. wala boo gis nag ci jolof ci kenn yi. da nga ci am pourcentage. maa la wax li ah? la wax li da ci am pourcentage kay. Ah. fi mu toll nii moom na ko ñëpp téléchargé. bu la neexee def ci retrait xaalis. maa li waaw. Mame Mbaye deuxième test bi. deuxième test bi daal. xam nga moom nañ fi test bu nga xam ne waa ji nee na. Euh, dafa mel ni dafa am lu ko dugg ba tax na da koy euh, nu jégal ma si kàddu gi da koy mballuloo rek. Mhm. dafay fo ci boppam. Mhm. à chaque fois. tes mhm. bi xaw na niroo parce que waa moom dafa jàpp ne. dafa am lu ko dugg wala seytaane daf koo topp. te da koy xiir ci lu bari. xiir naka ba nga xam ne li ci gën a yéeme moo di jigéen moom pour moom jigéen ba mu jàkkaarloo rek. war na gis awraam. Eh, waa ndaw. nee na jën jëm ko yegg ci kawam de. Mm. nee moom loolu sax intéressé wu. Eh, waaw na gis rek mais na gis rek. coy rabam ah, rabam yomb te nee na lu mu koy wéetuloo mel ni di ko feccloo di ka xaw ma lan. Mm-hmm. nee na boobu moom. Mm-hmm. mënu koo muñ. waaw ah. daal na gis. loolu rabu. rab bi loolu rabu italien koy def moom rabu réew la am. <laughs> ko loolu rabu italien koy def. rab bi eh. ko rabu rabu italien koy def. gis maa gis rab boo xamadi ba mel ni bosam bi nga ni rab daal nee na xéen na ko ci mbir mi lool ndeysaan bëgg na muy tegu ci bëtam saa su ne eh waay H24 eh na koy gis moom bu tegul loxo sax wala bu yeggu sax baax na nay gis rek ak ñàkk kersa ak ñàkk kersa plaisir des yeux ñàkk kersa <laughs> moom daal loolu la ci loolu la ci bëgg c'est c'est ne rabu Sénégal yi léegi dafa am yeneen rab yu leen rax ah ah rab bi am na melokaan waaw am na rabi italien yi fi ne ay <laughs> rabi américain rabi chinois <laughs> non rab bi am na melokaan. kii kii kii rabi italien ko dugg. rab bi tam est jël du jël du jël euh, euh, pon bu bon bi rab mi. <laughs> ah da rab bi tamit jëlu pon bu bon. da nga yaakaar rabu rabu jamaïcain la. waaw. ba ba est-ce que rabu génnewu ba yemoon yaa. waaw waaw génn ambulance boobu wala wax sànq noonu. c'est que réew rab de. ah est rab la tamit. fi nekk léegi. nekk rabu boppam tamit. ah nañ ko déglu rek ko déglu ñëw bu ñu xoolee ñu xool ci saafara ah. waaw sëñ bi salaamaaleykum yéen waa tës maa ngi leen di nuyu yëpp tambale ko ci yow mi nga xam ne yaa ma dégg téléphone ba ci ñi nga xam ne ñoo couvrir tas bi yéen yëpp maa ngi leen di nuyu di leen di leen siyaare waaw di leen wax ne nag seen mbokku taal bi moo ñëw tey tas li ma fi andi nag du dara du njaaxle man daal mbirum saytaane mooy li nga xamante ne moom ma sonal mooy li muy wax rab faru rab fu ma dem ñu ne ma di nga am faru rab depuis bi ma nekkee xale nag laa ko commencé seetlu ci sama bopp ci laa bi ma nekkee xale di sàmm ci laa commencé seetlu fu ma weet damay def naka su dul noonu su ma àndee ak sama morom bi du ma bugg a ànd ak kenn damay bugg a weet bu nekk ci sama activité bopp di fo wala may fecc léegi nag bi ma demee nag ba mu yàgg sama xel dugal ma ci xoolal sa morom mi ndax yow ni ngay doxale boo weetee ñoom la ñoom la ñuy doxale am balaa ngay egg foofu euh, say activité lan la samay activité maanaam waaw li nga ne boo weetee da ngay nekk say activité lan la bu njëkk ba bi nga xamante ne booy bu ndaw laa woon boobu su ma weetoon damay woyantu di feccal sama bopp mel ni damaa ak mbooloo to gisuma kenn léegi nag bi ma demee ba sama xel dugal ma ci xoolal ñeneen nit ñi ndax yow ni ngay doxali noonu la ñuy doxali léegi sama morom bi ma doon àndal ñuy sàmm su weetee su ko damay laqatu di ko xool ndax moom day fecci wala day daw wala day tëb di dal daal bi ma xamante ne gisuma loolu ci moom nag ci laay jéem a téye sama bopp waaye su ma weetee rek ci la su nga nekkee xale sa xel daal day nekk ci sew soo wéetee il faut ngay waaw waaw mel na ku wéru waaw mel ni ku nek ak mbooloo hmm. mais to ay nit waaw bi ma demee nag ba commencé doon mag nag ci laa commencé di gént di sëy yooyu boo su ma weetee mu xiir ma ci may fooy sama bopp loolu yëpp ci di bi ma sa bopp. waaw ci maanaam da ngay da ngay da ngay da bi. di ko waaw di di fooyee xam nga góor rek xam nga góor moom rek na ma yàlla baal xam nga boo weet su ma su ma weetee daal fu kenn nekkul rek maa nga ca yàlla xam na ko ci laa dem nag bi ma demee. bu dee am jabar. man amagu amagu ma jabar li ma yor mënuma koo yor yu am jabar ñeenti ngoro dugal nañ ma ci fu ma ji dugg du soti waaw xam naa li wa li ko waral te ñemewuma koo wax sama yaay parce que sama yaay wérul lan la mooy li ngay foye sa bopp waaw li may foye sama bopp ak li nekk ci man fu xam nga jabaru village moom bu fekkee rek amoo benn problème mën naa bañ a jafe parce que say waajur ñoo la koy wutal mais foofu fuñ ma yebal su ñu demee bu desul dara ndax takk am na ci koo xam ne sax jotoon naa koo takk mais ab ñu demee boo desul dara ndax takk affaire bi day am problème moom mooy jékki-jékki bañ wala ay waajuram bañ léegi nag sama sama yaay nag laa nekkal moom depuis mille 2015 dafa defoon soog ci sareet gaañu boobu ba léegi jogaatul boobu léegi jogaatul te mënuma koo wax li nga xamante ne moo nekk ci man li sama léegi nag boo gisee ma ñëw fii nag ci seen rajo bi njaaxale kese moom a fi tax a ñëw parce que fi mu toll nii damaa amatul nu may def li ma amoon yëpp dugal naa ko ci sëriñ si barke Seydina Muhammad sëriñ bi ma mujjee dem mën naa la sax andi mën naa leen andil sax facture bi deux cent vingt cinq mille la ma laaj. fay nga ko deux cent vingt cinq mille. fay naa ko lépp bu ma koy laaj boobu cinquante mille laa yoroon sama poos ma jox ko ko dem village ba sama yaay li mu amoon ci ay béy ak ay ginaar yooyu ma jaay dajale. ak li may koloo koloo ci li may kii ci menee bar bi ma dajale ba dèjà kii ba ba dèjà vingt cinq millimètres ma fay mën naa la andil facture bi su may ñëwaat nga nga gis kayit bi mën naa la koo andil fay naa ko lépp mu jox ma traitement ma ma jël traitement bi ba mu jeex waaye affaire bi balaa muy gën a gannaaw sax ngay jël traitement barke Seydina Mohamed balaa muy gën a garaaw ngay jël traitement bi nii li ngay def ci li nga daan def maanaam foogee sa bopp bi kese moom moo des bàyyi nga fecc bi wayantu yëpp ma ne la tey la gën a garaaw tey la tey la waalo gën a aay pour ñëw ci rajo bi sax barke Seydina Mohamed problème la woon bilaay walaay tey bi ma waxee démb démb bi ma waxee damay ñëw fii yaakaar naa sax loolu la démb laa xëy keroog keroog ajuma damaa xëy bugg a ñëw fii ba mënuma fee ay egsi ba six heures jot. def ma xaw ma maa gëlëmal xaw ma. parce que da ma da nga ñëw waaw barki yonent bi waaw kay yow kon comprendre nga affaire bi ni mu demee. bilaay walaay tey. léegi yow da nga jàpp ne rab bi moo lay tere. rab bi la loolu xam naa ko pour ma dem ci sëriñ sax problème la mais damay jéem a ànd ci ak. volonté parce que tey tamit tey quatre ci guddi te quatre ci fajar moom laa jóg sama yaram bi yëpp di metti ba ma ne man de de waa ji waxoon na ma ne suba altine na ñëw mais gis nga. doo dootuma dem bu mu yàgg damay toog daal bu mu yàgg dafa may leer ne lii lii moo ko waral bila te mënuma koo expliquer kenn nag sama benn copain nag sama benn copain koo xamante ne sama xarit la ñun ñooy ànd chaque jour maak moom li tax mu xam ko maak moom dañoo àndoon ci benn sëriñ sëriñ bi seetal ma ne ma yow de moom ñemewu la dangaa am rab kooku loolu moo tax mu xam ko kooku sax moo ma njëkk a wax ne tee ngaa fexe dem tës ma ko ah mbirum tës yooyu loolu ay caaxaan la billaay walaay bi ma ko njëkkee wax ni laa ko ko waxee mbirum tës yooyu loolu ay caaxaan la mu ne ma yow déglu nga tës ma ne ko que ñu fay dem loolu déglu mu ne ma déglu nga tës yow tës bu fa dem dina saafaru léegi nag bi ma demee ba amatuma pexe nag ci la ma woowaat ne ma demal foofu nga essayé xool ci laa wax ne nag dinaa def tout parce que fi mu toll nii damaa jaaxle liggéey bu ma dugg du sotti billaahi walaahi liggéey bu ma dugg balaa ma fay am weer ma am fa pro yaa ngi continuer di fooye nga gëj sa bopp maa ngi continuer di fooye sama bopp bari gëj a def Seydina Muhammad mën naa laa wax ne tey moom defuma ko tey moom mën naa laa gaara démb def naa ko mën naa laa gaara barki si mën naa koo def ci suuf xoolal li gën a métti mooy xam nga li gën a métti ci àdduna siñ bi mooy mooy li ngay def tooñ nga koy defal sa bopp xam nga li ma ne xam nga nit mën na laa tooñ wala dara dal la nga ne lii yala moo ko dogal waaye li gën a métti ci àdduna bi mooy loo xam ne yow yaa koy defal sa bopp ba noppi mënoo ci dara loolu mooy li gën a tey ëpp ñetti yoon par ci ci bés bi. kon sa awra bi day métti. barki xoolal damay fooy sama bopp ba muy métti barki alxuraanu karim weeru koor laa wax de su ma wóoroon ba heure bi tamit mu ñëwal ma damay dagg koor gi dem defi ko barki alxuraanu. da lay dal ci weeru koor barki Seydina Mohamed weeru koor laa la wax loolu mooy li gën a métti ci grand góor nga. waaw wax nga dëgg. Mhm. waxat mu ñëw nga wax. mais dafa am loo xam ne dafa xaw ma fan laa jëm ci at xaw ma damay xaru barki Seydina Muhammad sëriñ bu ma yaakaar ci àdduna li nga dem ci ay sëriñ ëpp na ñeent 2018 ba léegi laa la wax barke Seydina Mohamed op na ñaar fukki si. te luñ la laaj ci xaalis yaa ngi koy jox barke bi ma ni mu toll. laaj nañ ma 100000 loolu xam naa ko sëriñ bi ma njëkk a kii 100000 faraa la ma laaj ne ma 100 100000 yi boo ma ko joxee dinaa la faj. ma jox ko cent mille francs bu mu yàgg mu jox laajaat ma quarante mille pour saraxu bi ma joxaat ko ko. keneen kooku keneen ki laaj ma trente cinq mille. ma jox ko mu laajaat ma 35000 ma jox li ma def ci sëriñ xaw ma ni mu toll. barke Seydina Mohamed xaw ma ni loolu nga jàpp ñaar yooyu rek nga jàpp. déedéet du loolu kese. ku mujj ki 200000. Ah, ki ki mujj moom yàggul mën naa laa andil ticket bi suba suba nga xoolal ko sa bopp. barke Sey ndax dama ko doon feyal nii. sama amatul dara to mënu ko wax fii moom daa yaakaar damay naan sangara wala damay def leneen. to barke Seydina Mohamed ndax moom wérul to ñemewu ko wax ne damaa am rab. barke Seydina Mohamed ñemewu ma ko koo wax. léegi loo bëgg ba tax nga ñëw. man li ma bëgg mooy. li ma bëgg mooy dale ko ci yow mi nga xamante ni yaa ma may occasion bi tey boo ci mañ Mansour Diop boo ci Bougane mi nga xam ne moom moom kër gi képp koo xam nga dimbale ma ngir jëmi Sëriñ Tuuba nga jàllale sama message bi képp koo xamante ne mën nga maa faj to yàlla rek tax nga dimbale ma ci parce que sonn na man xamatuma nan laay def damaa dem boses barki alxuraanu karim damaa dem boses léegi liggéeyatuma defatuma dara damaa wax ne fi mu toll nii moom rabbi su ma bàyyiwul damay xaru benn yoon parce que barke Seydina Muhammad damaa dem boses rek rek xamatuma nan laay def yoratuma dërëm xaalis bi ma yoroon yëpp dër dal naa ko ci sama yaay li ma amoon jaay naa ko def ko ci to mënuma ko wax ni fii laa ko def barke Seydina Muhammad man sax waxuma jabar am jabar ndax xale bu ndaw laa vingt cinq ans kese laa am waaye bari kese man li ma gën a métti rek mooy liggéey mënuma koo am ci àdduna te li ma gën a métti mooy fu ma dem ci àddu fu yaa ngi woor di julli di nekk maay def lépp maay maa ngi jéem loolu yëpp maa ngi koy def maa ngi koy def maa ngi def loolu yëpp maa ngi ko damay jéem a damay jéem a xool benn bés boo xamante ne sax du weeru koor ma jéem koo woor ngir toroxal sama bopp waaye xoolal bés boobu lay gën a garaaw li ma la wax ma ne la lool foofu lay gën a garaawe barki alxuraanu karim foofu lay gën a garaawe balaa muy gën a garaaw balaa muy gën a garaaw nga ne tey damay woor ngir sonal sama bopp ngir duma def lu bon barki Seydina Muhammad xoolal damay jékki-jékki topp àll bi di daw di dem. waaye xiiroo la benn yoon ci ay jigéen. waaye yow xoolal barki si. barke Seydina Mohamed xoolal damay xool jigéen bu mu yàgg so xoolal songu ko kese laay xalaat barke Seydina Mohamed. mais mosoo koo def. déedéet mosuma violé jigéen moom waaye billaay walaay damay toog bu mu yàgg xoolal man tëdd ak jigéen neexuma de pour tëdd ak jigéen nii neexuma de mais gis awraam kese moo ma neex. mais tëdd ak jigéen ñi neexuma jigéen bëgguma tëdd ak moom sax bilaay wallaay mais gis maanaam gis awraam kese mooy li nga xamante ne moom ma ci neex barke Seydina Muhammad da lay romb jigéen da lay romb doo ko xam sax waaw waaw waaw waaw di ko xool waaw waaw di xool ci moom xool di ko xool fo xool nit ba mu ne la nga may xool di xool di xool ampagaay la ampaga mbala jigéen di sangu ma koy yurndu loolu yëpp ampagaay la barke Seydina Muhammad nit di sangu nii ma koy yurndu loolu yow yaa ngi koy def bilaay wallaay mosuguñ la see jàpp barke Seydina Muhammad non wax nañ ma ko waxaat na ko depuis bi ma nekkee xale mais léegi laa soog a xam ne kon rab moo ma koy développé mais depuis bi ma nekkee xale barke Seydina Muhammad dama doon dox ci wano yi xam nga dëkk bu fekkee dëkku village ay wano la ñuy am ay saket mais doon dox ci wano yi di jéem a yuur di yuur ndu jigéen yi mais te dak jigéen moom neexuma mais gis ma ne ah. yaakaar ni heure jot na waaye dañ fekk tës bu métti. billaahi dëgg woo na ko métti métti métti la wallaahi dëgg la ku ma ñeewantee nga jar naa dimbale de parce que yitteel na ko ba mu jël ay alalam di ci def. plus de deux cent et quelques mille. psychologiquement mu ngi koy travailler. parce que bu demee ba naan est-ce mm-hmm. xaru. non non. bu ma gi sax nee na li mu koy def loolu mënu ko mënu ko muñ. ndeysaan nee na kay moom saa yu wéete ma nga ja. nee même day or. nee na saa yu ma wéetee maa ngaa am na suñu génn bu ñëwee mu laax na suñu génn kilifa. suñu génn kilifa gu jar a dimbale la billahi wallahi suñu génn kilifa gu dëkk Touba. Mhm. Euh, nee na ñëw mu kii ko mu dimbali ko ñaanal ko. alhamdulilah oh, waaye alhamdulilah amiin waaye. yal na yàlla mottali ko. amiin yàlla balaa amiin. yal na fa yàlla dogal saafaraam ne foofu. waaw bu ñëwee ci ma bu ñëwee ci màgg baax. Mhm. màgg baax woowu dinaa ko jox numéro kilifa nekk Touba. même ku démb ki aussi ku démb kooku euh, xaritam bi yóbbu ci ab sëriñ. waaw waaw kooku yàqal ay bien. Mhm. kooku itam nee na ñëw mu mu mu dindi nekk. alaaj yow fi mu toll alaaj fi mu toll nii kay ni nga war a def leen la rek. waaw moom mooy rek euh, màgg baax woo leen jox leen numéro kilifa gi. waaw ñu dem directement nii nii nii ci tàng tàng bi. Mouhamed sa annonce bi suba naa ko jàngale ndax lu ne këtt lu ne jot na ko. suba naa ko jàngale waaw dëgg yàlla daf ñoo ko. ay waay massa waay ay waay massa waay. li ko dal metti na de. trop. xale bu ndaw 25 ans kii Moustapha sama benn waay nee na si bëgg na takk soxna mais mënu ko mënu ko su antamee waaw day yàquwaat day yàquwaat te du xam lu ko rab yi def nga sax bu fekkoon bu fekkoon bu fekkoon ñoru ko sax nag mais ñor na ko da koo ñor mu jël alalam lu mu yoroon def na ko imagine deux cent lu mu yoroon yëpp dañ ko dimbale te yaay ji sax am na lu mu xamul xamul ni day mbaloo yooyu ko nee na loolu am na kersa. saa di nga de courage. incha allah yàlla baax na yàlla yàlla teg teg ko loxo waay. jubale ko sunu sang ba ca Touba lépp saafaraw. amiin amiin yaa rabbal alamin